Amin, à ce point. jërë ngeen jëf mbokki Leewtoo TV te ñu ñëw Olympique Club fekk fi Diène Kairé muy doomu Boy Kairé war a dajeek euh, Modou Anta ñu fekkoon nag ñu nekk ci entraînement ñu tara tara tara tar war a waxtaan ak moom Diène Kairé ñu ngi. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw ba ma sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur xam nga di sant euh, Sénégal yëpp di sant mbokk jullit yëpp sant mbokk chrétien yi. di leen ndokkale si Noël bi passé di ñaan yàlla at bi ñuy dugg nii tamit xam nga tane bi jàll nii yàlla sunu boroom mi def 2020 mel nii yàlla na ko dindi te indi lu ñu lu gën waaw ci barke yonent bi waaw xam nga di nuyu waa Médina maa leen ziar bu baax Fass Gueule Tapée Colobane waa Soumbédioune géej ñëpp moo leeg mareyeur yi maa ngi nuyu waa Canal 4 yëpp di ko teg ci loxo Baba Diaw rek waaw sama grand sama lépp mu jàllale ko ci canal 4 bi yëpp ñoom Aba Amdi Papa Ndaw sama ñoom père Oussoupaye su ma limee damay juum cat ba cat daal waaw ndax ñu ngi may jàppale ak Medina bi yëpp di ñuy sama yaay bu baax a baax a baax ko ñaanal wér tamit xam nga mboolem yaay ci àdduna yëpp di nuyu waa Cité Asecna Derklé Cité Marine Kasor Cité des Eaux xam nga xaar yàlla Grand Yoff waa kër Ndiaye Lo yëpp daal ñëpp tam maa ngi leen nuyu ak sama mbokk séeréer yi foog la séeréer ma xëy sim joka nuun o njal ñanana nuun jam ñananan fop leya nuun e jegaam jegaam combat mi fa Modou Anta leya ye nu ndam teen a paax a paax a paax yaam o kiin waage jeg ka xupna o pogum to mi nuun jegum nuun yaakarum séeréer yëpp daal Diène ñu fekk la Olympique Club depuis kañ nga commencé entraînement fii waaw loolu moom boo ma ko waxee dama ciy sawar parce que fii mën naa ne ba mu fii ñëw ba réeguma arène waaw bokk naa si mën naa ne booy fi njëkk daal bisimilah maa ngi koy nuyoo passage papa moom ma fi indi moo jàpp sama loxo indi ma fi dama jàppale tamit xam nga sama père Alsane Ndoye ñoo ma indi fii daal ma ñëw tamit fekk fi gii gii di sama papa gii papa la ci man parce que moom fi ñëw attanu ma sax 10 kilos waaw di nekk di liggéey ak man xam nga naan ma gëmal sa bopp di ma jàppale di ma maye équipement boobu yàgg na waaw di ma defaral lu ne daal te yàlla tax di ma jàppale ba ma yegg si fii waaw. te ko ñaanal yàlla tam parce que moom bu guddee fan rek avantage bu bëri la avantage bu Sénégal la. ok ñu fekk la fii mais lan nga fi wut exactement da nga ñëw pour am doole rapidité lan nga fi wut exactement. waaw li ma fi wut mooy xam nga comme préparer rek mbër laa damay yokk sama doole yokk sama vivacité waaw yo yokk lu bari daal ànd ceeg sama coach gii xam nga mooy teg ci code waaw dama ñëw daal jox sama bopp ne ko maa ngi noonu man ak sama doomu nday si ñu ngi koy nuyu salle bi instant moo ko lépp. waaw ñëw fayal ñu fi daal xam nga ñu ne si liggéey bi topp si ginnaaw gi parce que moom ak combat ak adversaire lay liggéey ku ci nekk xëy xool sa adversaire lu mu laaj xam nga mu ne ci daal. dama la gis mais sa poids xaw na des tuuti euh, sa ce qui est mooy que ne combat bi dateeguñ ko mais est-ce que yaakaar nga ne d'ici jour combat bi di nga am poids bi nga bëgg. waaw man nii nii rek nii nii rek am naa li ma bëgg waaw nii nii rek am naa li ma bëgg yàlla xam na ko. su ma waaw non non yaakaaruma ko quoi parce que xam nga xam nga période bi xam nga bitim réew ak feebar bi tamit xam nga ñu ngi ñaan yàlla mu jóge fi waaw da ngay dem seen saali day tëj léeg-léeg nga am problème mu ñibbi si xam nga fekk jël nga avance jàmbur je préfère toog fi ànd ak sama coach gii tamit xam nga ñu liggéey daal parce que li may soxla fële yëpp maa am fii lu ko raw ak gii. Mhm. temps yi ñu gis euh, mbër yi organiser ay conférence de presse deux conférences de presse am nañ fi mais gisuñ la fa lu ko waaw dëgg la boobu nag dama dama jàppoon. nekk ma fi woon quoi waaw ñaareem nekk ma fi woon maa ngi leen di féliciter tamit booy ñaa moo njëkk def bi ak ñoom Balla Giri Bordeaux Ama Sène sunu grand yooyu yëpp di ko rafetlu parce que mbër yi bu ñu demee ba jóg di kaas rek làmb yàgg na metti yàgg na dëgër te doo gis benn mbër jóg kaas mais bu ñu demee ba kaas rek mooy xam nga sëf nañ sës nañ quoi waaw ñëpp gis na gis nañ secteur yëpp a ngi doxal éducation bi transport bi xam nga loolu yëpp dañ ciy kontaan commerce bi tamit lépp di dox suñu bàyyi lépp dox tam ñu bloqué làmb ji nañu xam ne làmb ñee ni ñu waree dox ñun loolu noonu la ñu waree dox parce que ay jeunes ñoo koy def xam nga ay xale ñoo koy def yaakaar ci nekk ay sportif di ci daj ay coono xam nga buñ bàyyi lépp dox ñu bugg ñu bloqué rek dañu xam ne ñu xam ñuy tardel waaw. Euh, ministre bi li mu wax mooy nangu na làmb dem mais en huis clos lañ ko def est que yaakaar nga ne làmb ak huis clos ànd na. waaw boo bëggee dëgg-dëgg moom àndul moom huis clos moom toog bañ a bëri sax gën. waaw parce que làmb ak wii kenn mënu la ne xam nga nii la war a mel làmb ak football bokkul làmb ak leneen ak leneen ak leneen bokkul te arène nationale bi am na ay place nañ ko nañuy tëbal par banc sax loolu war na mën nekk tëbal par banc mais wii kulo moom ak làmb mooy làmb ji dem na ndox ma moom waaw. Euh, feebar fi nekk est-ce que du seule solution bi fi nekk pour que làmb mën a daw tamit. Ah, que xam nga wérgu yaram avant tout tamit loolu moom dañ koy nangu moom bu fekkente ne tamit loo xam ne jar nañu toog tamit dañuy toog parce que xam nga. du nekkul ñoo xam dañuy sacrifier ay doomu aadama mais yeneen secteur yëpp ni ñuy doxee di dox suba ba ngoon jot làmb booy xool 4 heures de temps lay soxla stade yi par par week-end benn 4 heures de temps rek xam nga bu ñu bàyyee élèves yi di jàngi leen ba vendredi ñun war nañu mën a may loolu waaw sama gis-gis bu gàtt. Ah, léegi ñu dugg sa dernier combat bi na nga dajagoon ak Quench. combat bi nii suñu làmb di di def benn bilan en saison bi da wax ne combat boobu mooy déception de la saison est-ce que yow loolu du déception ci yow. waa déception la du déception parce que xam nga yàlla li mu dogal moom noonu rek lay demee dañuy nangu loolu ba pare loolu mu ngi suñu ginnaaw jóge naa ci Quench maa ngi koy nuyoo passage maa ngi war a dajeeg moo daan kon loolu fàtte naa ko waaw fàtte naa ko saa li sama kanam laay xool daal. Euh, kon sa combat ak Modou Anta. première question bi ma lay posé foofu mooy lu tax nga nangu jël euh, Modou Anta alors que euh, ñëpp d'accord nañ ko ne moo la jiitu lu bari ci làmb. waaw xam nga li tax ma bëgg ko jël mooy di bëreeg samay morom def samay preuve waaw te làmb moom xam àdduna sax laa ku nekk da ñaan yàlla avancé waaw te man moo daan li ma leen di wax sax bu fekkente ne dafa diis si man wala mu war ma jaaxal si làmb su ma fi jógee bu bu bu naa dem xooli leneen waaw. gis nga ko gis. waaw signature bi laa ko gis ah signature ko gisee noo ko noo loo wax. waaw ni kontaan rek xam ne mbër la champion la loolu laa doon ñaan yàlla. bu dee wàllu préparation moo tax ngay wax moom man li ma fekk fii may def muy liggéey bi loolu rek moo ma ñor dama dalee commencé ba léegi noonu laay doxalee sama adversaire lu mu mën ak li muy waajal ak ki mu doon ak lépp contrôlé wu ma ko xam nga sa damay ànd ak samay coach liggéey li may liggéey waajal ba nga xam ne bu jour ba mu bëre daan ko kon continuer sama yoon won ko ne taxaw maa jóg. souvent Modou Anta combat mi Thiès la koy bëri est-ce que pare Ah, waaw comme que moom kay nangu na jóge Thiès di ñëw Dakar ñun tam war nañ mën a bu ñu yóbboo Thiès ñu dem bëri man awma problème boobu. devant public am. waaw ah, waaw moom mu ngi ñëw devant son public loolu dara loolu méttiwul waaw. combat boobu Modou Anta bu koy kii xam ne mbër bu technique la mbër bu rapide la Diène est-ce que pare na ci côté yooyu pour mën ko contrer. waaw bu baax bu baax ak liggéey bi ma nekk di liggéey ak kii moom xam naa ne du am problème ci loolu wax ndax sama combat passé bokk na ci li ma handicapé waaw mooy dama diisoon ba nga xam ne xam nga yu bëri day xaw a métti moo tax bii baax daal xam nga maa ngi fii di liggéey loo xam ne incha allah bu arab di génnee suñu diggante képp ku ku meroon si combat bee passé di nga kontaan si bii incha allah. yóbbante loolu amateur bu bindal bind ko <laughs> waaw jeex na. léegi combat bi également euh, physique bi baax na ci rapidité baax na bi mais également techniquement est-ce que Diène dina ko pare pour ñëw ci combat boobu. Ah, waaw bu baax parce moom xam nga loo gën a yéeg ci kaw rek di gën a daj ay ndaanaan. waaw te loolu yàgg nañ ko préparé du tey te loolu lañ bëgg ngir mën a wone suñu bopp dafa am lu ne si ñun ñu war ko wone si làmb. fekk la fi mais est-ce que yaa ngi ciy boole également mbapat bi ci ci plage. waaw ñu ngi si ñu ngi si bu baax parce que làmb moom man emploi du temps lañ ma tegal rek soo xëyee fii ngay dem boo paree fii noppalu après fii ngay dem. ñaata séance ngay def par jour. waaw essence deux laay def damay dóor fii bu ngoonee ma dem xam nga cukki cukki nang nang ànd ak sunu waa écurie maa ngi leen nuyu sunu coach yi écurie su Mbéjun yëpp président bi xam nga waa MAS mbër yi képp kuy tax ngemb écurie Soumbédioune rek maa ngi lay nuyu suñu dirigeant yi ñoom grand père Maxu Ibu Combaan paa waaw staff bi yëpp daal sama papa ñëpp waa géej mareyeur yi tamit nga xam ne ñëw nañ jàpp ci écurie bi waaw ñëpp daal waaw. ok euh, Diène Kairé est-ce que dina ko faral muy jël ay vidéo duy seetaan adversaire am pour xam ay qualité am wala ay defum. waaw bu baax bu baax nag parce que mën naa ne sport fa la toll quoi waaw. lan mooy qualité ak waaw loolu nag dama koy téye pour man parce que gis naa ay gis naa ay défaut daal gis naa ay défaut gis naa ay qualité mais lépp daal maa ngi toog di ko jàng di ci liggéey parce que làmb sport moo toll foofu yëf professionnel la léegi. Diène hmm. euh, est-ce que un jour mi ngi rêvé fi ñoom Balla Gaye ce mooy que ne yaa ngi rêvé jël un jour roi des arènes mais est-ce que xam nga lu la yóbbu foofu. ah waaw li ma fa yóbbu moom bu ci njëkk mooy dogalu yàlla waaw bu ko yàlla tuddee moom ne di ko nekk di ko nekk ñaareel ba mooy am naa gëm-gëm bi. yàlla xam na ko moom laa nelawoo di ko yeewoo di ci liggéey xam naa li ko ëpp nag li koy joxe mooy liggéey liggéey xam nga liggéey lu méttee méttee métti te incha allah ñoo ngi ci. sa dernier combat bu ne euh, bu mën nañu wax ne peut-être conseil yi moo tax mu demee nu mu demee noonu est-ce que un di nga ñu conseil la dara nga gis ne lii boo ko jël defee di nga ci am ndam te du conseil est-ce que di nga jël risque boobu def. waaw dëgg la làmb moom si làmb boo boo jógee rek day am lu mu lay jàngal waaw te ñun gis nañ loolu ci làmb daal. waaw te bii bi di ñëw sax yaakaar naa gars yi dañ may bàyyi ak ma dem ak sama xelu bopp waaw te boobaa incha allah dina gën a neex daal waaw. la euh, lan lay wax euh, CNG bi Alioune Sarr jaar na fi 26 ans tey dem na boo doon def bilan wam lan ngay def ban bilan nga koy jox négatif wala positif. non positif parce nit moom xam nga jërëjëf daal ak nu mu demee wax ko nit. waaw te sunu maam sax laay wax Alioune xam nga macha allah def na fi lu rafet malgré kenn mënul matal. te boo gisee mbër yi daan ko kaas tamit wala dara nekkul dañ ko personne am la kii wala dara mais boo jiitee yëf xam nga c'est normal nit gis lu ko naqari mu kaas Macky Sall sax gars yi dañ koy kaas naan ko baax na wala baaxul mais xam nga ku ne xam ne am na fu mu yóbbu làmb loolu moom ñëpp dañ ko koy nangul di ko ñaanal yàlla xam nga gudd fan ak wér gu yaram ki ko remplacer tamit yàlla may ko kattan ba mu mën fi def loo xamante ne moom defu ko Bira Sène moo ko remplacé ba mu ñëwee ba baissé na euh, prix yi def na ay baissé na euh, prix licence yi def na ay jéego mi ngi jubale nit ñi nan nga jàngatee début Bira Sène. waaw début am dañ ciy kontaan loolu moom wax dëgg mbër yëpp la touché ñëpp kontaan nañ ci daal xam nga ak woo yi mu woot arbitre yi dajaleep parce que affaire bi ñun ñëpp ñoo ko bokk amul mere kii wala yooyu ñëpp ngay woo ngeen dajaloo toog waxtaan xàccandoo dóorandoo mais mu ngi doog am liggéey nag mooy làmb ji dafa war a démarrer te ñu xool lu ñu ko négocier ba mu ba mu bañ a mën a nekk huis clos parce que instant benn mbër xamul fooy taxawee waaw ñëpp a ngi entraîné daas fanaanal mais kenn xamul fooy taxawee parce que huis clos moom mook mook toog bañ a bëri ñooyam. seen promoteur bi est-ce que mi ngi leen di wax euh, ci combat bi kañ la ko bëgg a wala genre demee waaw moom mu ngi waxtaan ak man sama papa lay gën a jokkool nag papa ak sama ménagère Mbaye Diagne maa ngi koy nuyoo passage xam nga ñoom lay gën a jokkool daal man ci terrain nii laa nekk mais xam naa ne daal instant yii ñëpp a ngi toog di xaar waaw hmm. léegi ñu jeexal nañ émission bi boo doon tàggoo lan ngay wax. waaw mooy tàggoo di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp. waaw bébé jéen tamit maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla tamit génne ko foofu mu nekk. waaw parce que xam nga làmb da ko yaakaar àdduna yaakaar ko te yàlla lu mu dogal si fii doomu aadama kenn mënu ci dara waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal lool daal mu génnaat ba fekk si ñu si liggéey bi di sant ñëpp di nuyu ñi may taxawu xam nga. waaw baaba mention spéciale ak gaayam yëpp daal Medina bi cat ba cat su ma limee damay jum ak soxnaam Awa vraiment aw ma fayam waaw yàlla laa koy bàyyil ñu may taxaw waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama doom ndey bii booy town waaw instant yi moom ñoo nekk ci liggéey bi di hivernal di ko mettil waaw xam nga di di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp waaw. nuyu waa France tamit ñu mel ni sama copain Seng Seng moom mu ngi si jàpp bu baax xam nga waaw sama nijaay bu ne foofu Giata maa ngi koy nuyu ñoom Xaadim Gueye Souley gars yi ne foofu yëpp chaque jour dañ may woo di ma conseiller xam ñoom Kolifaal sama copain di leen ziar waa États-Unis tamit maa ngi leen nuyu baax a baax a baax rawatina New York ak ku lu mbër bu ne foofu di rayante rek di daan sa doole xam nga maa ngi lay ñaanal xéewal ba nga ñibbisi sama nijaay Mbagnick ñoom Pont Juif xam nga waa Rhode Island tamit maa ngi leen nuyu baax a baax sama ñoom père Marga yi xam nga mama Kiné ñoom ñëpp daal waaw maa ngi leen di ziar baax a baax di nuyu waa 55 tamit nga xam ne ñoo may tëggal waaw ku ci mel ni Fallou xam nga di ko ziar yaayam maam Ndiaye teeram xam nga ñoom caane ñëpp daal maa ngi leen ziar wax dëgg dañ may tëggal te yàlla tax di ma jàppale xam nga waaw di leen ñaanal jàmm daal waaw ak Sénégal yëpp daal maa ngi ci ñaan jàmm di ñaan feebar bi gaaw jóge fi ñëpp nekk si jàmm di Pape Thialis sa maa ngi koy nuyu borom xam nga di ko baax ñoo nekk saal vraiment di ñu conseillé di ñu jàppale xam nga di ko baax daal di ñaan yàlla Leewtoo ca kanam waaw di rafetlu seen liggéey ci internet bi tamit euh, euh, la nekk benn message lancé waa internetu Leewtoo am nañ benn page Facebook lan ngay euh, ban message ngay envoyé ñooñu di suivre le Leewtoo. waaw Leewtoo moom seen liggéey rek dafa rafet parce que loolu moom fii sites bëri nañ mais ku ne booy liggéey sa liggéey rek yow yaay waaw di ñuy nangoo daal di ñaan yàlla daal mu jëm kanam site boo xam ne la am na fu mu yóbbu làmb si deux ans yi nii loolu moom ñëpp dañ ko koy nangul xam nga di ñaan yàlla gars yi gën a jàpp rek gën ci abonné xam nga saf ci sàpp te xam ne daal Leewtoo làmb la fi nekkal jaajëf waaw.